musa dellu na misra
musaa nag dellu ca goroom yetro ne ko may ma ma dellu misra seeti samay bokk ba xam nu ñu def yetro ne ko demal ak jàmm ci biir loolu aji sax ji wax ak musaa ca majaan ne ko dellul misra ndaxte ña la doon wutare ñépp dee nañu musaa ànd ak soxnaam ak doom yu góor waral leen mbaam ma ngay dellu misra jàpp yetu yàlla wa ca loxo ba yóbbaale aji sax ji ne ko keroog boo delloo misra na nga taxaw temm te def ca kanam firaaw na kéemaan yi ma teg ci sa loxo yépp man maay dëgëral boppam mu të ba du bàyyi mbooloo mi ñu dem su ko defee nga wax firaaw na ne ko aji sax ji dafa wax ne israel mooy sama taaw bu góor te wax naa la ne la nga bàyyi sama doom ndax mu mën maa jaamu nga bañ kon nag dinaa rey sa taaw bu góor ba ñu lalee panaan ca yoon wa aji sax ji dafa dogale musaa nar koo rey soxnaam sipora jël paaka bu ñu yette doj dog mbuñukam doomam laalale ko ca tànkam ne ko jëkkër ju ñuy jote deret de laa am ba loolu amee aji sax ji bàyyi musaa ba sipora di wax lu jëm ci jëkkër ju ñuy jote deret aaday xarafal gaa taxoon ci biir loolu aji sax ji wax aarona ne ko demal gàttandu ci musaa ca manding ma aarona dem seeti ko ca tund yàlla wa fekk ko fa taf ko ca kawam musaa xamal ko la ko aji sax ji dénk lépp ak mboolem finde yamu ko sant mu def ko ci kaw loolu musaa ak aarona ak si misra ñu woo magi bànn israel yépp ñu daje aarona jotli leen kàddu ya aji sax ji wax musaa yépp ba noppi musaa wone finde ye ca kanam mbooloo ma ba mbooloo ma gëm ba magi israel déggee ne aji sax ji nemmiku na bànn israel te gis na notaange gi ñu nekke dañoo sujjóot màggal aji sax ji
yàlla feddi na diggéem baak musa
keroog ba aji sax ji waxee ak musa ca réewu misra da ko wax ne ko man maay aji sax ji nanga wax firaaw na buuru misra li ma lay wax lépp teewul musa tinu aji sax ji ne ko waa waaye man dama tële wax mbaa firaaw na dina ma déggal yee aji sax ji ne musa dama ne def naa nga féete firawna fi ko yàlla féete sa mag aarona di sa yonent su ko defee yow nga wax ko li ma la sant lépp sa mag aarona wax ko firawna ngir mu bàyyi bànn israel ñu génn réewam waaye man maay dëgëral bopp firawna ba fulandi samay firnde ak samay kéemaan ci biir réewu misra firawna du leen déggal su ko defee nag maay tàllal sama loxo tiimale misra te maay dogal mbugal yu kéemaane ba goreel bànni israel sama ñoñ ñu génn misra kuréel ci kaw kuréel keroog bu ma tàllalee sama loxo tiimale ko misra ba génnee bànni israel ca seen biir waa misra dinañu xam ne maay aji sax ji la aji sax ji santoon musa ak aarona noonu rekk lañu ko defe musa nga tollu woon ci juróom ñetti fukki at aarona moom am juróom-ñetti fukki at ak ñett ca jamono ya ñuy wax ak firawna
firawna gàntu na
aji sax ji dafa wax muusa ak aarona ne leen bu leen firawna waxee ne leen def leen seeni kéemaan bokk danga naa aarona jëlal yet wi sànni ci suuf ci kanam firawna su ko defee yet wi dina soppaliku jaan ci kaw loolu musaa ak aarona àgg ba ca firawna ñu def la leen aji sax ji santoon aarona jël yatam sànni ca suuf ca kanam firawna ak i dagam yet wa soppiliku jaan ba mu ko defee firawna moom itam woo boroom xam-xam yaak jëbar ya ñeengukat yi misra ya ñoom it fexe ca seeni xarga fuufa ba def lu mel noona ku nekk ca ñoom sànni yetam mu soppaliku jaan yetu aarona nag wann seeni yat terewul firawna të faalewu leen muy la aji sax ji waxoon
yar bu jëkk ba ndox mu soppiku deret
gannaaw loolu aji sax ji wax na muusa ne ko firawna daa dëgër bopp bañ naa bàyyi mbooloo mi ñu dem dangay teel a xëy ca firawna ëllëg buy génn jëm ca ndox ma nga dogale ko ca tàkkal dexu niil te yóbbaale yet wa soppaliku woon jaan wax ko ne ko aji sax ji yàllay hébré yi moo ma yónni ci yow mu di la wax ne la bàyyil sama ñoñ ñu jaamu ji ma ca màndiŋ ma yow nag booba ba tey yaa ngi tànxamlu aji sax ji dafa wax ne ni ngay xame ne man maay aji sax ji nii la dama ne dinaa dóor ci ndoxum niil mi yet wi ci sama loxo ndox mi soppaliku deret su ko defee jën yi ci dex gi dee dexu niil gi mucc xasaw ba waa misra dootuñu mën a naan ci ndoxum niil ci kaw loolu aji sax ji ne musa waxal aarona ne ko jëlal saw yet te tàllal sa loxo tiimale ko ndoxi misra muy seeni dex ak seen yooni ndox ak seeni déeg ak fépp fu ndox taa mu ànd soppaliku deret deret ja dina daj misra gépp ba ca këll yaak njaq ya musa ak aarona def loolu lépp na leen ko aji sax ji sante naka la ne xaasiyet wa ne ko tar ca ndoxum niil ma ca kanam firaaw naa ki dagam ndoxum niil ma mépp di deret jën ya ca dexu niil ga dee dexu niil ga xasaw ba waa misra mënatuñu caa naan misra gépp di deret ñengokati misra itam fexe ca seeni xarga fuufa ba def lu mel noona firaaw na te rekk tànqam lu musa ak aarona muy la aji sax ji waxoon ba loolu amee firaaw ne ne wërëñ dellu këram te bàyyiwul xel ca mbir ma waa misra gépp di gas la wër dexu niil ngir am ndoxum naan ndax mënuñu woon a naan ca dex ga
yarub ñaareel ba mbóot yu daj réew ma
ba aji sax ji dalee ca kaw dexu niil ba ñu teg ca juróom ñaari fan aji sax ji dane musaa demal ca firawna ne ko aji sax ji dafa wax ne bàyyil sama ñoñ ñu dem jaamu ji ma soo leen bañee bàyyi ñu dem kat maa leen di mbugale ay mbott yu daj sam réew dexu niil gi day ram-ramee ki mbott te dinañu ñëw dugg ci sa biir kër ak sa néegu biir ak sa kawlal ak sa këri dak ak sa waa réew ba ca lakkukaay yaak nootukaayi mburu ya mbott yi dinañu yéeg ci sa kaw yéeg ci sa kaw waa réew mi ak sa dag yépp ba loolu weesoo aji sax ji ne musa waxal aarona ne ko mu ŋàbb yet wi tàllal loxoom tiimale ko dex yi ak yooni ndox yeeg déeg yi ngir indi mbott yi ci biir réewu misra aarona tàllal loxoom mu tiim ndoxi misra mbott ya jóg lal réewu misra ñeengokat ya it fexe ci seeni xarga fuufa ba indi ay mbott ca réewu misra ba mu ko defee firaaw na woo musa ak aarona ne leen ñaan leen aji sax ji ngir mu teqale noog mbott yi man ak sama waa réew kon dinaa bàyyi mbooloo mi ñu dem rendili aji sax ji sarax musa ne firaaw na saa yu la neexee rekk sang bi wax ma kañ laa lay ñaanal yow ak say dak ak sa waa réew ngir jële fi mbott yi ñu tàggoog yéen génn seeni kër ca dexu niil ga dong lañu des mu ne ko nay ëllëg musaa ne ko baax na ndax nga xam ne sunu yàlla aji sax ji amul moroom mbott yi dinañuy jóge sa kër texlikoog yéen yaag say dak ak sa waa réew ca dexu niil ga dong lañu des musaa ak aarona nag jóge ca firawna musaa tinu aji sax ji ca mbirum mbott ya mu yare firawna aji sax ji def la ko musaa ñaan mbott ya dee ba jeex ca kër yaak ca ëtt yaak tool ya ñu jal koo jal ba xet ga ubale ca réew ma teewul ba firawna gisee ca mbir matan daawee të tànxam lu leen muy la aji sax ji waxoon
yarub ñetteel ba rayantaan yu daj réew ma
ba loolu amee aji sax ji ne musa waxal aarona ne ko mu tàllal yetam dóor ci pëndub suuf si mu doon ay reyentaan ci réewu misra gépp ñu def loola aarona tàllal loxoom ba mu ŋàbbe yet wa dóor ca pënd ba mu doon ay reyentaan yu song nit ak rab pënd suuf sépp defi reyentaan ci réewu misra gépp ñeengokat ya fexe ci seeni xarga fuufa nu ñu defe ay reyentaan waaye mënuñu reyentaan ya nag song nit ñaak rab ya ñeengokat ya ne firaw na lii de yàlla rekk a ko mën teewul firaaw na wéyate rekk tànqam lu leen muy la aji sax ji waxoon
yarub ñeenteel ba weñ yuy màtte
aji sax ji waxati musaa ne ko teeleel xëy ëllëg ca firaaw na buy génn jëm ca ndox ma nga wax ko ne ko aji sax ji dafa wax ne bàyyil sama ñoñ ñu dem jaamu ji ma ndaxte soo bàyyiwul sama ñoñ ñu dem kat dinaa yuri ay ndiiraani weñ yuy màtte ci seen kaw yaag say dàkk ak sa waa réew te dinañu àgg ci sa biir kër këri waa misra dina fees ak weñ yuy màtte ba suuf si ñu taxaw sax weñ yee koy muur waaye bu keroogee dinaa ci musal diiwaanu gosen ga sama ñoñ dëkke ba ay weñ du fa same ndax nga xam ne man aji sax ji maa ngi ci digg réew mii te maay musal sama ñoñ ci musiba moo muy dal saw askan ëllëg finde jooju dina am aji sax ji def loola weñ ñi def ndiiraan yu rëy song kër firawna ak kër dagam ya dajal réewu misra ba réew ma yàqu ndax ndiiraani weñ ya firawna daldi woolu musaa ak aarawna ne leen dem leen rendili seen yàlla sarax te nay ci biir réew mi nag musaa ne ko loolu du yoon ndax li nuy rendil sunu yàlla aji sax ji waa misra dañu koy xof te bu ñu sarxalee lenn lu waa misra xof ñuy gis dinañu nu dóor ay doj ba nu dee kon kay danoo war a génn topp mànding mi lu mat toxub ñetti fan rendili fa sunu yàlla aji sax ji sarax ni mënu ko sante firaaw na àddune dinaa leen may ngeen dem ca màndiŋ ma rendili seen yàlla aji sax ji sarax waaye bu leen sore lool ñaanal leen ma nag musaa ne ko bu ma bàyyi ko ci yow rekk firaaw na dinaa tinu aji sax ji ngir ëllëg ndiiraani weñ yi teqalikook yow ak say dak ak sa waa réew waaye kat firaaw na bu nu naxati di bañ a bàyyi mbooloo mi ñu rendili aji sax ji sarax musaa bàyyi ko fa firawna daldi tinu aji sax ji aji sax ji defal musaa la mu ñaan jële ndiraani weñ ya ca firawna ki dagam ak waa réewam ba weñ desatu fa teewul firawna te rekk bañ a bàyyi mbooloo ma ñu dem
yarub juróomeel ba deewub jur ga
ba loolu wéyee aji sax ji dane musaa demal ca firawna nga ne ko aji sax ji yàllay hébrë yi dafa wax ne bàyyil sama ñoñ ñu dem màggali ma ndax boo leen bañee bàyyi kat xanaa di leen téye ba tey loxol aji sax ji dina dal ci sa kaw jur gi ci tool yi muy fas ak mbaam ak giléem jur gu gudd ak gu gàtt te jàngoro ju aaytal lool lay doon waaye man aji sax ji maay ràññaatle juru bànn Israyil ak juru waa misra ba lenn du dee ci mboolem lu bànn israel moom aji sax ji nag jàpp na bés nee na ëllëg may def loolu ci réew mi ca ëllëg sa aji sax ji def ko jurug waa misra gépp dee te jurug bànn israel lenn deewu ca ba firaw na yónnee ba nemmiku mbir ma xam ne na lenn deewul ca juru bànn israel teewul mu tëddi ci ba tey bañ a bàyyi mbooloo ma ñu dem